le parti directement le président de la République li jaay woote muy waxtaanaat ci Saalum xoolaat doxalini Saalum xoolaat responsabilité yi ñu joxe ci Saalum xoolaat nit ñi ñuy teg ci Saalum pour ñu mën koo doxal tranquillement pour doomu Saalum yi mën a nekk à l'aise mais au moment où je vous parle wax dëgg yàlla doomu Saalum yi nekk guñ à l'aise ci li ma gis ci attelage gouvernement bi passé surtout. li ma jàpp mooy ma wax ne cërëwuñu ndax ab région bu amee quatre ministres cëru nañu waaye jàpp naa ne laaj na waxtaan laaj na gën a dolli cër laaj na bu ñuy partagé ti ñu xool nan lañ koy partagé. coowal troisième mandat li sa xalaat. moi je suis avec le président Macky Sall pour mu am deuxième mandat waxuma troisième de du troisième. quand on parle de sept ans c'est c'est c'est c'est c'est derrière nous loolu sept ans la cinq mandats c'est deux mandats consécutifs. la ñu wax mënul nekk yu cinq ans def nañ benn bu cinq ans 2024 ñu defat beneen bu cinq ans bi ci topp nag suñ bugaatee nekk candidat nit ñi mën nañoo coow mën nañoo fippu mais deuxième mandat wu cinq ans moom incha allahu rabbi su ko bëggee ñu jox ko su ko bëggut danañ ko wax laajal pour ñu jox ko parce que pare nañu. et c'est lui qui parle avec vous est un maire responsable politique te bu ko laajee man danaa gagné fu ma dëkk yeneen maire danañ gagné fi ñu dëkk responsable yi danañ gagné fi fi ñu dëkk. xanaa bàyyiwu leen xel deret ji nar paaka du fi génn fetal du fi takk ndax ci yoon lañ ko teg Saalum gi bu téeméeri élection mu gañe ko nee naa la jubbanti rek moo des ci ay mbir ci Saalum waaye lépp yemb na ñu fal ko 2024. conseil constitutionnel ci li ma jàpp. moralam mooy moralam li ma jàpp man xam nga lu ma jàpp. moralam waru koo may mu sacrifier sénégalais yi ko gëm quatre-vingt pour cent des sénégalais quatre-vingt pour cent des sénégalais moom la ñu gëm moom la ñu yaakaar moom la ñu óolu ci li mu commencé pour mu àggali ko moral non attends moralement xalam warta xalaat dëgg dëgg yàlla mu di fi bàyyi nit ñi 2024 pour ut ku ñuy remplacer wala ku koy remplacer na fi toog ñu falaat ko lawoon ci législative wala ci local du benn man mii di wax ak yow liste parallèle laa demee woon te damaa gagné te ci njabootam gi laa bokk. département ñoor boo fa demee ñëpp APR lañ fii boo fi ñëwee Kaolack ñëpp APR lañ ngee ngi new ñëpp APR lañ léegi lu ngeen bëgg. voilà Ndiaye ñoo gaa yi ngi dem. ne Sénégal yi ñoo laaj Macky Sall am troisième mandat te dana am troisième mandat wa